asalaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj Fallou Silla nekk président commission sportive bu Croix-Rouge Mbacké waaw espoir bi moom ni ñu ko gisee waaw macha allah am na solo lool ndax euh, fitness dafa bokk ci xeetu tàggat yaram boo xam ne lu am solo ci doomu aadama te doomu aadama dafa di tàggat yaramam te gis ne dafa nekk espoir boo xam ne dafa complet dafa mat sëkk moo taxoon ñu amoon xalaatu fexe ba mu am fii ci Croix-Rouge bu Mbacké yàlla dogal tam ñu kilifa yi. ñu nangul ñu ko ànd ak ñoom tamit ñu dox ko parce que kilifa yi ñoom ñoo dox lépp ànd ak ñoom ba ci euh, inspecteur des sports waxtaan ak moom mu nangul ñu ko yàlla dogal mu ñëw defal ñu tey jii journée bi muy formation bi muy formation bu am solo. defal na théorie def na pratique bi mais am na solo lool macha allah. sport moom lu bees a fi bii bii fitness lu bees a mais sport mi fi doon am ñu ngi fekk ñu ngi fi doon def yàlla dogal ñu nekk ñu tamit bi ñu yàggul mais. daal ko ci sport tamit. Mm-hmm. ñoo ñëw dolli si dañ ca dolli rek mais fekk na ci sport am fi. Mm-hmm. bii dina ñëw dolli si am na ci yeneen yeneen yoo xam ne ci plan d'action bi war nañ koo continue donc ci turu ministre des sports ci turu monsieur le préfet du département de Mbacké tey dama fi ñëwoon ci invitation waa Croix-Rouge ku ne Croix-Rouge wax banqaas bu am solo ci réew mi Croix-Rouge kenn dootu ko présenté. waaye ci biir croix rouge dafa am ay commission am ci benn commission sportive euh, di ay jeunes yu xarañ yu ko jiite defoon tey ab activité bu am solo ñu koy tuddee activité sportive wala ñu tuddee ko fitness bokk mu nekk loo xam ne dañ ma ci invité woon euh, ma ñëw participer ci en tant que formateur ñu def une heure de temps yoo xam ne sur le terrain la fitness ak beneen une heure de temps boo xam ne en théorie lay nekk mais mu nekk activité boo xam ne bu ama ama ama am solo la parce que lu bëri la lu ñuy faral di def ci biir salle yi te ku nekk xam ne salle dafa tëju te nag waa Croix-Rouge nga xam ne seen mission loolu la mooy euh, gën a jàppale askan wi ñoom ñu ne lool yi ñuy def ci salle yi dañ koy génnee ci biti ñu nit ñi gën ko xam parce que loolu du dara lu dul rek euh, tàggat yaram dimbale nit ki dimbale ku góor kii dimbale ku jigéen kii dimbale mag mi dimbale ndaw mi ba nga xam ne dina mën a tàggat yaramam ku ne tàggat yaram nag wax xeex ak xeex ak yenn jàngaro yi nga xam ne aujourd'hui médecins yi ñu ngi may dégg jàngoro yoo xam ne tey dañu sonal askan wi bi ci jiitu mooy obésité yaram bu bari ak surpoids ku nekk xam na ne yooyu rek tey ay feebar la parce que yooyu ñoom ñoo jur hypertension artériel yooyu ñoom ñoo jur lu ñu tuddee diabète yooyu ñoo jur aujourd'hui li ñuy tuddee ay ay ay ay insuffisance mu nekk ay feebar yoo xam ne tey jii sonal nañu askan wi te ñoom ñoom waa commission sportive bi nga xam ne ñu ngi bànqaasoo ci bi Croix-Rouge comprendre boobu ñu comprendre loolu moo tax ñu jël lii tudd fitness nga xam ne du dara lu dul gën a yokk euh, cawarte doomu aadama bi may ko mu nekk nit ku wér parce que tamit ku wérul mënuloo amal Sénégal euh, daanaka mënoo participer ci action de développement réew mi kon dañuy jaajëfal euh, monsieur le préfet bi nga xam ne moom moo ma permettre ma bokk si waaye damay jaajëfal Croix-Rouge autorités yi ñu ngi nii taxaw ma leen di remercier ci confiance bi ñu am ci man mais également remercier ñi nga xam ne ñooy la commission sportive ki ko jiite je pense que c'est mon ami Fallou Silla ñoom Mamadou Dia et tout donc maa ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal di ziar presse bi aussi parce que li ñuy def très très souvent yéen yéen a koy génnee sans la presse sport mënul dem fenn. loolu moo tax présentation bi ma def ci biir ma njëkkee ko ci coach wala njëkkee ko ci moniteur coach mooy ki nga xam ne. moom mooy def fitness bi moo koy defaral nit ñi kooku dañ ko war a waajal suñ ko waajalul moom mooy indi souvent yenn problème yi yenn jafe-jafe yi parce que nit ki lépp lu muy dugg war na nekk lu mu war a xam war na nekk lu mu war a bëgg wax naa ko sànq ci biir formation bi nee naa leen médicament yi jóge ci pharmacie bi naam faj moo ko tax a jóg waaye bu fekkente ni tamit xamoo noo koy jëfandikoo mën na laa indil ay gàllankoor te gàllankoor yooyu taxuñu ko woon jóg li ko taxoon jóg moo doon defar li ko taxoon jóg moo doon faj waaye ñàkk xam nuñ koy jëfandikoo moo yóbbee nit loolu su ko defee man li ñu bëgg mooy nit ki lépp lu muy dugg mu xam ko bëgg ko jox ko ak xam parce que affaire bi ci nit lay jóge te ci nit lay dellu su ko defee loolu moo tax commission bi ci seen plan d'action ñu imagine jël ñenn ci ñoom former leen encore si métier coaching wax naa métier parce que métier la coaching métier la boo xam ne dañ ko war a jàng xam ko xam matière bi xam xolu nit nu mu yëngatoo xam xëtaru nit nu mu yëngatoo xam yàlla yuqu nit ki ak yax yi ak siddit yi ak li nga xam ne mooy articulation yi naka lay fonctionner ak naka la ñuy préparer nit ki ba mu bëgg ko ak naka lañ koy gérer doser ko ci temps ci espace bi ba nga xam ne dafay nekk loo xam ne dafay nekk comme njarum soow bu ñuy naan mu nekk ci moom njariñ donc pour delluwaat ci sa question lépp loo xam ne da nga ciy dugg pour mu jariñ la dafa war a ànd ak xam-xam. tey ñoo ngi fii ci école Mamour Diarra. Mhm. ànd koog inspecteur Ka bi jiite tout ce qui sport ci département bi muy le service départemental sport. Mhm. ànd kooku les secouristes donc du département. Mhm. les anciens Abdoulaye Seck Kanté sëñ Xaarim ji ak ñeneen ak ñeneen sëñ Maña Dégg sama ñeneen. Mhm. waaye ànd ko commission sportive bi nga xamante ni bii Fallou Sylla moo ko jiite initié woon ko bii bokk ci ab pàcc ci plan d'action yi mu def ci at euh, ñu profité ci nag euh, mhm. vraiment di sant inspecteur ci disponibilité am ci partenariat bi mu lii ak ñun waaye itam ci xarañteem ak compétence bi mu jàngale tey ñu gis ko. di sant suñu président bi nu autorisé itam ñu mën a def lii. waaye itam di sant ñi commission bi nga xam xamante bi ñoo ko initié ak euh, secousses yu nu wuyu si. surtout anciens yi ak euh, ñu bees ñi. activité bi nag comme ni nga ko xamee la daa ne ni inspecteur wax na lu bari. sport mooy lépp. Hmm, danga koy faral di wax. un esprit sain. dans un corps dans un corps sain. ëpp xam-xam ak xam-xam boo man di am te sa yaram amul wér-gu-yaram nga mm. wala sa euh, wéroo sa xam-xam boobu doo ko mën a jëriñoo. loo tax xam loola daal di intégré ci activité am sport. Mm-hmm. amoon na équipe football bokkan na ci compétition yu fi jàlloon ñu ñëw tey indi benn euh, club fitness naal ab équipe handball ab équipe basketball waaye naal yeneen activité ci activité yooyu tam naal nañ ci benn formation boo xam ne dañuy former suñu éléments yi mm-hmm. ci médecine sportive ndax nu ñooy dem ci lamb yi ñun ñooy dem ci football bi ñun ñooy dem ci salle de karaté yi fépp fu ay sportif daje rek ñun Croix-Rouge ñoo am na nag benn base. mooy geste premier secours. waaye su inspecteur ñëwee indi na beneen partie boo xam ci dañuy jàngal euh, médecine sportive. dañ ci xamee loo xamante ni bii xamuñu ko woon ci bi ñuy def secourisme. kon loolu dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax. Euh, incha allah rab bi fas yéene koo def di wax nag bépp département bépp comité département. taal bu nekk fii ci Sénégal war nga initier donc lii Croix-Rouge départementale def maa ngi koy lancer un appel di ko jox la présidente niveau national euh, vraiment ñu yaatal ko ci au niveau départemental ba kala comité départemental di ko faral di def ndax Croix-Rouge dafa polyvalente comme c'est polyvalente ah, danoo war facette bu ne ñu dugg ca moo tax lii Mbàkke def tey ñoo ngi ñaax suñu mbokki département yi def ko ba Croix-Rouge nekk ci facette yëpp